système mhm. loolu def ko lancé ci euh, con présidentielle jagleel ko ñi nga xam ni moom moo di ndaw ñi alors tey ngay li nga xam ni ngay jàngalekat itam ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar tey lan mooy sa jàngat bu njëkk ci conseil présidentiel bi ñu xam euh, ñeel xëyub euh, ndaw ñi waaw jërëjëf kontaan nañ bu baax xam naa li ñu gis ci temps yi ak actualité Sénégal mhm. loo xamante ni presque mosul am mhm. ay jeunes yu bari nekk ci ay situation yu jafe-jafe. Mhm. ñu profité nag ci benn événement politique di manifester xam naa ni loolu président déglu na leen. Mhm. loolu moo tax mu président de la république euh, lancé benn programme bu tudd. Mhm. programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes. loolu def ko lancé ci euh, conseil bu mu jël. ci euh, jeudi bi passé. conseil bu am solo. boo xamante ni dafa woo jeunesse sénégalaise bi yépp waxtaan ak ñoom Euh, gox yi yëpp dañu teewoon fii ci rencontre bi. Mhm. ci loolu nag euh, dafa am ay décision yu am solo. Mhm. Euh, ci décision yooyu. Mhm. maanaam def quatre cent cinquante milliards. ci ñetti at yi mooy deux mille vingt et un deux mille vingt deux ak deux mille vingt trois. njagleel ko ndaw yi. man gis naa ni loolu dafa am solo. li gën am solo mooy aussi. Euh, dañuy créer ay emploi mhm. euh, président de la république jël décision bu am solo mhm. maanaam euh, créer soixante cinq mille emploi mhm. pour jàppale jeunes yi ci ay côté yu bari am na cinq mille yoo xamante ni côté éducation te xam nga ni éducation mooy tabax réew am na loo xamante ni ci côté développement xam nga fii fu ñuy wax environnement dafa am solo. Mhm. donc loolu day dem ci côté environnement. Mhm. am na ay yoo xamante ni ci gox yi. Mhm. mooy pavage mooy dindi sable mooy leneen ak leneen liggéey boo xamante ni intérêt national. man loolu rafet naa bu baax décision yooyu. soo euh, jëlee à part euh, soixante cinq mille emplois dafa am montant bu am solo boo xamante ni dañ ko. war a soutenir ci programme état bi mhm. maanaam ñu mel nii ay ANIDA mhm. ay PRODAC mhm. ay ANA ak yeneen programme surtout aussi jàppale secteur privé bi gis ngeen ni secteur privé bi contribution bi léegi dem na ba un milliard ba quinze milliards loolu dañuy jàppale secteur privé yi pour ñu gën a liggéey euh, programme de maillage soo jëlee Ziguinchor jaar Kolda Tamba ñëw ba Kaolack dafa am mooy programme bu am solo ligne à très très haute tension. mu lëkkale diwaan yi mu lëkkale. Mhm. loo xamante ni mun nañu dem jëm uti ji courant bi. Mhm. ci barrage Manantali. wala uti ji ko fii ci dakaar mhm. wala uti ji ko ci Taïba Ndiaye. donc yóbbu ko feneen. foo xamante ni soxla nañ ko ci Sénégal. pour man loolu dafa am. am solo am solo alors yaa ngi doon wax ci mbirum courant yi ci gox ak goxaan yi donc daf ñuy may ñu waxtaanee commune bu Médina Chérif. am fexe na bu eh, Macky Sall maa ngi koy gërëm bu baax. à travers le PUDC. ñoo ñëw pour jàppale suñu gox bi pour ñu am accès à l'eau potable mhm. fu mu ne nii je peux vous dire qu'on a kilomètres de réseau ak trois forages mhm. yoo xamante ni mun na alimenter au minimum autour de vingt cinq villages parce que mhm. liggéey bi pareegul ñu ngi liggéey fu mu ne nii ñu ngi gas ñu ngi yóbbu tuyaux mais loolu suñ paree mun na la wax ci commune Médina Chérif près de deux pour cent accès à l'eau potable en 2014 dinañu dem d'ici fin d'année à autour de quatre-vingts pour cent d'accès à l'eau mhm. loolu nag dafa am solo parce que ça contribue au développement mhm. des population à la base okay. deuxième programme bu am solo mooy mhm. ci fondation bâtiment bi mooy la santé xam nga soo amul santé ku werul doo xalaat lenn dëgg la waaw li ngay xalaat rek naka ngay def pour nga am euh, une bonne santé loolu moo tax amoon nañu ñaari poste de santé yoo xamante ni c'est avec euh, les partenaires. Mhm. benn bi euh, programme euh, dans le cadre de l'État moo ko tabax. Mhm. mais ñu ne loolu doyul. parce que dañu am ay particularités suñu commune. Mhm. am na benn partie boo xamante ni malheureusement partie bu enclavé la. ñu tabax foofu poste de santé en attendant état bi di jàppale ñu pour ñu am foofu piste de production. ñu tabax foofu post de santé boo xamante ni poste de santé équipé. ñu uti ji ay personnel de santé. fu mu nee nii ñun commune Médina Chérif dañu am plusieurs personnels de santé yo xamante ni ñun ñoo ko recruter ñoo leen di di fay. Euh, loolu dafa am solo. Mhm. Euh, def nañu lu am solo. Mhm. Euh, loo xamante ni ci côté éducation côté santé. Mhm. ci côté maanaam defar dëkk bi. lu mel ni lotissement. mais aussi ay partenaires. am nga Médina Chérif léegi côté partenariat. véritablement on a beaucoup de partenaires yoo xamante ni ñu nekk ci Sénégal ak bitim réew. Mhm. Euh, bëgg nañ ñëw Medina Chérif pour liggéey. Mhm. déjà fu mu nee nii on a un programme de construction de 500 logements. Mhm. boo xamante ni war na tàmbali bientôt. Euh, am nañu benn programme euh, pour production aquaculture. sur 20 hectares. loolu tamit dafa am solo li ci des mooy. mënuñu wax fii lépp. population yi ñoom ñoo ma faloon 2014. ñoom ñoo war a décider. Mhm. man mënuma décider dara. Mhm. <laughs> mais ñoom ñoo war a décider. mais mais candidat le moment venu. Mhm. naa ni moom population yi. dinaa leen wax ah sama bilan bi mu ngi nii. yéen ñoo war a xool. Eh, ak sama bilan bi. yéen ñoo war a décider. ñoom ñoo ma andi woon foofu. Eh, am confiance ci man. Eh, jox ma mandat. donc li ma war a def mooy. su jeexee. ma demaat ci ñoom. def leen présentation li ma mën a def. Euh, li ma li ma def. Mhm. li ci des mooy. Mhm. ñoom ñoo war a décider. Mhm. est-ce que dinaa nekk candidat wala déet. non yow yow ñoom ñoo war a décider. yow est-ce que di nga nekkaat candidat. opposition ñoom ñoo ragal. Euh, audit fichier électoral. yi pare nañu su ñu waxoon élection yi. Euh, opposition bi nee na app bi léegi élection yi kenn xamul kañ lañ koy amal xanaa yéen da ngeen ragal seen parti APR dafa ragal dem élection. déet déet déet ñun kay pare nañu. ñu waxoon élection yi tey tey tey tey par nañu mais aussi mm-hmm. euh, lu ñuy wax ci tubaab mënoo mm-hmm. bëgg benn affaire mm-hmm. et son contraire waa opposition ñoo waxoon ci dialogue national bi ñu ne il faut que ñu def audit fichier électoral ñoom wóolaguñu fichier électoral bi il faut que ñu def ci audit Sénégal euh, kii ñu def ci dialogue bi ñu d'accord ci ñoom ci euh, audit fichier électoral bi ñu tàmbale audit fichier électoral bi def processus bi bu ñu paree nag après nag nañ def révision de la liste électorale mhm. loolu processus la mhm. mënoo nangu loolu ba pare mhm. nga gis benn situation nga yaakaar ni situation la opportunité la nga ne a ah, déet déet yow il faut ñu organiser élection yi tey loolu tamit aussi du responsable kon ñoom ñoo ragal voilà donc euh, foog naa ni waa opposition ñoom ñoo ragal mais ñun ci côté pouvoir vraiment on est prêt depuis longtemps pour ñu dem ci askan wi. Mhm. laaj la laaj leen ak yeneen mandat mhm. mais lu ñu def. Mhm. ak suñu président. Macky Sall lu mu def fii ci Sénégal. ak ñun effort ñu def ci suñu commune. ah ñun kay ñun kay pare nañu. mais mun naa la wax ni. opposition nag xam nga ñu bari ci opposants yi. Eh, malheureusement. Euh, seen base bi mooy micro. <laughs> waaw ñu bari ci opposant sénégalais yi. Uh-huh. seen base di bi télé la ak micro. mais mënuñu réunir dix personnes vingt personnes. ok mais ñun président de la république ak le parti. Mhm. la coalition Benno Bokk Yaakaar. Mm -hmm. et la mouvance présidentielle. Mhm. loolu moo leen tiital. ok <laughs> donc pare yéen pare ngeen bu yàgg. oui deux mille déjà avant deux mille deux mille dix mhm. avait la coalition Benno. loolu mosoo ko gis ci Sénégal.